ñu ngi nuyu mboolem ñu di jiital le président Fadal di ko félicité di ko sargal Moustapha yaakaar naa li waxoon naa la ñun dañu ko man ma ne ko xajul nañu bi moom bu loo xam ne waroon def dëgg fa dafa dal ndax man xam naa potentiel bi nga xam ne ñu ngi moom ci dëkk ak yéen jàmbaar yi xam ne. yéen a ko dal mu réew ñi nekk Mbacké ak ñi nekk Touba ba di la kalaame ak nag ñi nekk Touba ñuy liggéey ñu am ci coalition bi taxawaay bu dëgër moo xam Mbass moo xam Mante moo xam Maawa la ak mbooleem ñi nga ne ñoo nekk ci coalition bi yëpp ña ngay tuutute ñun la ña ngay liggéey ànd ak ñoom di la jox nuyoo bi jëm ci mboolem ak ñëpp ak mboolem responsabilité di am mbégte mu ne nag ci ni ngeen àndee ak li ngeen def nga xam ne amuñu nattable ci ne au soir du 31 juillet bu ci yàlla àndee fii la pas match da ngeen di gagner facilement les élections avec plus de 60 à 70 pour cent des voix on ne peut lenn mooy nattable kon li ci des mooy li nga xam ne mooy te Touba te foofu itam suñu xel dal na ndax dara bépp li nga fa da wooyee ñama kilifa bi nee na naa dugg Touba ak président yi ndax kenn ku ne xam na ne département Kébémer kenn waxaale wu ko loolu gën a dalal suñu xel ndax xam nañ la fa am xam nañ taxawaay ba fa am te moom bu duggee ba léegi itam ñun gis nañu xam ne andi na ko fa kon président Fada au de toute la coalition au nom du président de la république ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci sa ci coalition bi dans le département de Mbacké dina xamal ne sa ñëw ñu yàkkamti woon la ñu ñu bëggoon la te bi nga ñëwee on n'a pas été déçu li ñu doon xaar ci yow li ñu doon yaakaar ci yow bi nga ñëwee wane nga ba wane lu ko ëpp kon ñu ngi lay sant di la gërëm di xamal ñëpp nag ne ñu ñu àndee nekk benn bokk ndey bokk bàyyi viser le même objectif muy gagnal bi le président Macky Sall bu soobee yàlla buñ sunu borom mën nañu ko defal te il le mérite il le mérite ndax li xam ne moom la seq ak kilifa dina rawatina kii di wajuram mu Cheikh moom moom mu daf ko yeyoo ndax li xam ne def na ko ci biir bi en termes de réalisation ba dafa dem rek teg leen lu mat juróom-benn sëriñ ci biir dëkk bi fii ci Mbàkke foog na am na sëriñ bees yoo xam ne ñu ngi fi kon ku mel noonu ak yaram ak teginam mënuñoo topp ñi nga xam ne dañu nase xam ñi nga xam ne dañu indi violence ci dëkk bi ñi nga xam ne dañu bëgg créer instabilité Sénégal ñi nga xam ne dañu bëgg a protéger la marche du pays indi fi cohabitation loo xam ne kenn xam na ko su boobaa dañu nasaxal état bi te Sénégal dafa toll foo xamante ne bii ñëpp dañ koo ñëw ko teg ndax richesse yi fi nekk am na ñoo xam ne seen li ñu gën lépp seen nawet yëpp moo teg ne bii ñëwal leen doole ki nga xam ne moom la ñu far su boobaa li ñu bëgg dañ koy am te loolu musiba la ci ñoom loolu moo tax war nañ jot ci élection yi ndax fi ñaan yi fi suñu tubaab ñaan bépp na ma ne bu am na tukki am na moo am te am na ñoo xam ne bu ñu bari leen wax ma sax bu am lu am ci réew mi moo tax xam ne dañu parle dañu gagné président Macky Sall mooy gagné ak la coalition Benno Bokk Yaakaar loolu la ñu dalal suñu xel et président Fada encore ñu ngi lay gën ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di gërëm ñuy fekk yëpp sëñ Maga Jaxate ñu ngi lay gërëm di la sant ak mboolem mag ñi fi nekk ñëpp kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf